man madd moo may daaneel Sénégal wax leen madd souriirul ma bàyyi way wi yeey mak madd kanu dengee kën nay madd suka saa nga ca wet ga xorom saa nga ca wet ga kaani gaa nga Euh, salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi euh, nee naa leen bés bu jot bés bu nekk rek ci nii laay xel di ci ànd ak yéen man day màdd euh, ba tax na rek tey nee naa leen si seen émission bu rëy bi la tubaat fa kàlla nee leen moo di taaw ma ta ñàkk beneen bu ñëw rek na na catlu te xam ne taaw ba jóg na mu di doxantu ma ta ñàkk tey ñu seese fi ndaanaan bu mag tey bu nu nee mi dinaa rek tubaat fa kàlla nee naa leen man day màdd bàyyiwu ma benn bàyyiwu ma foroxtal bàyyiwu ma jàmb nee naa ku ma rek mu di ndaanaan sénégalais yéen téléspectateurs yi ngeen soxlool ko seen bopp ma jokkook moom ñu doxantu ngeen xam biireem ak biteem man day màdd forox toll maa ñëwaat ak yéen ci seen émission doxantu bisimilah ñu ngi Medina ñu xool naan lay seet si wala sax si la foo jàll jéeri buuru ngalam may ma benn clip <coughs> may ma benn clip <coughs> daal di daagu tuuti rek gars yi seetaan xam la may wax ñu xool naan laay àndal ci seen biir émission doxantu ayca jàllo

mais yaa ngi si jàmm. ñu taxale rek. ah man grand tey dama dama dama euh, Medina. waaw deful na xam nga ne studio bi fii la ne ci kaw fii. ñëw fekk grand ok kon loo foo doon dem sa studio. ñu ah mais léegi kenn dematul. naan ànd ak la ambassadeur de rappeur ayca ñu dem ci moom côté bi daal wala côté bi. waaw fu la neex ah yaay xool. non non yow yaay borom Medina tey man yow laa àndal yaa may wax rek. fooy ban côté ayca Pape Samb nee na ñu topp ko. mais Simon ci loo ne. waaw eh, grand naka mu lépp a jàmm. waaw sant ah waaw ñu ngi nanka nanka. dëgg la naka affaire yi. ñu ci kawam ñu pare ñu ngi Dakar. comme dañ doon ñëw ba tey ku ne xam ne Simon boo wax ci rap sénégalais maanaam rap mm-hmm. euh, doo doo ñaari ndaanaan ca boole woon ci Simon. loolu nga xamante ne tey si moom liggéey nga. ñaar ndaw na de doon na cent wala deux nee nañ nee nañ mënoo ñaari naanaan te ñetteel bi doonul si moom man loolu mooy sama problème. ma leen lan moo tax loolu. salaamaaleykum père. su dee père ça va. salaamaaleykum Jean naka moom jaajëf. cotisé xëy na si moom doo ko dimbali nga cotisé ko balaa muy dal ci kaw gaay yi. waaw am na de dana ca am njariñ de ndax sama caméraman taxi bu ko fir rek danga ma tooñ tournel ñoo ko choisir ak a difficile ah mais ba léegi waaw Simon. waaw naa la ñaar nga ne ma cent pourquoi nga xam nga ñun moom franchement ay taalibe lañu ci mbirum rek ñu jéem a def de telle sorte ñuy

ba ba ba voilà yenn facilité mais li nga wax nii sax laay dëgg léegi nii euh, bi may tijji laa dégg kenn ku ne euh, Simone dafay fay plus de euh, cent maanaam am na ay employé presque sax mat nañu cent ma ne ko waa mais attends Simone lu muy def xanaa rabul rek mu ne ma non dafa yor ay société affaire yooyu noonu mais Simon yan société nga yor à rab bi wala leneen ak leneen parce que fii gars dañ naan rab waaw saa saa sax ñu ne rappeurs yi amuñu njariñ parce que dañuy tëdd ba naaj tàng jóg taseex bool bi tàng comme ni ko gars waxee ñu naan seen kaas café te non ñu ngi dugg studio maanaam am na métti ma dégg ñu ne euh, Simon day fay plus de cent employés non xam nga boo gisee loolu du ay société la ñu am chaque année dafa am benn tournée bu ñuy def tournée baa ngi tudd hip hop bis tu vois caméraman yéegal balaa oto bi di la jël ba bu ma xam <laughs> wala waa LCS am nañ assurance xam nga boo déggee loolu mooy. tourné pour bu le hip hop bi chaque année. donc dañuy engagé ay ay rappeurs. mais dañuy engagé tamit ay ñuy def régie dañuy engagé sécurité di engagé matériel di def ay ay tournée ay concert ay b-boy te nous boo seetee ba seet dañ leen di signaler ay contrat donc contrat bi le but moi chaque année chaque mois ñu fayeeku comme nous gagnons yi di donc daaw bu ñu mujjee def ak en partenariat avec un euh, téléphonie mobile bon est encore en orange, Orange le ministère de la culture ça nous a permis de faire travailler presque 184 personnes Nous y rappeurs vagabonds, ay la ay mais nous, voilà tabaski nous sommes jënd tu vois euh, di des frères et sœurs donc la réalité bi donc euh, man kese defuma ko agriculture urbaine boo fa demee dañuy liggéeyloo ay nit di leen fay par weer bu malal boo demee géejuwaay ji hip hop da def chronique 2H mars bu Black Diamonds level studio studio Sankara c'est une référence ñun ñëpp da koy def Pendra da def ak j'en passe tu vois donc mais loolu nit yi xamuñu ko dañu foog ne rek rap rek lañuy def non mais gars yi dañuy yor ay nit di leen fay par wèr bu dé di ñuy wër Sénégal def nañu 14 régions Sédhiou Tamba Kédougou fépp lañu dem donc euh, lolu ci hip hop bi la bok ci culture urbaine la bok bu weesoo loolu tamit amna ño xamné dañuy ñëw di lu ay t-shirt ci suñu tur ñu ci am xaalis dem diko jaay di fayéku amna ñuy ñëw di jël suñu ay CD dem diko jaay di fayéku tu vois donc euh, côté bobu lañuy waxé waxee quoi. Euh, Modou ni lay def. waaw waaw Medina moom non instant yii heure bi nga ñëw la sax mooy loolu. mais mooy. dama yaakaar ne est-ce yow euh, euh, ci ci ci ci Medina ba ba sa album bi euh, benn waay boo xam ne bi musique neexulee na waaw walaay comme bañ. dama yaakaar ne dana naan mboolu Medina neexulee wala parce que boo xoolee tey jii. tur bi mbool bi tur bi loolu gars yi sax mm-hmm. yow mënoon na dem activité. Mm-hmm. wala Mhm. bon xam nga Medina quasiment lañu ñu commencé rap man bi may dëkk Medina, may ngi dëkk côté 41 bi fële donc euh, côté bobu lañu ñu commencé rap ñu doon fréquenté Gueule Tapée lañu Tapée la ñu doon gën nekk parce que fofu lañu ñu jëkk a dëkk foofu la suñu ami d'enfance yëpp nekk mais ben moment dëkk nañu Medina pendant quand même 7 ans tu vois

mané ko bon kaay ñu boolu affaire yi ñu def ko donc ci lañ ñëwee ci gàllem donc euh, defee studio bi fini quoi parce que bon Médina quand même ci ñun la bokk ni Fass bokkee ci ñun ni Gueule Tapée bokkee ci ñun ni Fann ok nga xam ne sama mère fa la dëkk bokkee ci ñun quoi. non amul problème. naka mu. lépp a jàmm. ñu ngi ziar. waaw fii la ëppee jaajëf waay. na ngeen def ñu ngi ziar bu wér rek naka mu. lépp a jàmm ah. naka job bi. waaw foofu la rek doo waa rek. waaw fii la ëppee. maintenant fi jaaraat dama fiy jaaraat incha allah eh, jaajëf ayca ba léegi si moo ñu gis ne am di jàmm yi. bariwul ay artistes yoo xamante ne. Euh, Lamine naka mu léegi jàmm ah? jaajëf grand naka mu jaajëf. Euh, bariwul ay artistes yoo xamante ne maanaam mhm. ñuy dugg wala sax ñuy liggéey. Mhm. Mhm. am na ci ñoo xamante ne tey euh, su leen ñu leen di jëwee loo xamante ne maanaam dañ ci gis ne artiste bi mu sootee affaire yooyu. normal est ce que yow saa saa nga romb nit ñi gars yi ne si moom nga ne noonu nga ne waa jaajëf waay. gars yi non non ñun ñun ñun honnêtement ñun ay

non amuñu problème yooyu alhamdulilah. kon yàlla baax na. Mm-hmm. Euh, ba léegi ñu gis ne Simon euh, nekk na jeune maanaam mm-hmm. nekkul xale xale yooyu noonu mais état yi da nga màgget ay ay pas quoi xam nga. yaa ngi nekk paa yi xam nga. affaire yooyu noonu. mais xam nga Simon bàyyiwul boppam ba léegi ñu gis ne Simon maanaam bàyyiwul ko boo déggee ma ne la Simon bàyyiwul Sénégal maanaam dañuy dañuy gis maanaam yoo xamante ne Sénégal. mun ko mun ko def. léegi ñu dem a dem a dem a dem ba ci dëkk bi jamono ji toll. yéen waaye waaye naa Manta tey dem nañ ba am bés boo xamante ne ni. man dama naan Macky Sall amatul bés boo. yéen waaye naa Manta. waaw. xam nga xam nga mooy lu ñuy wax am na yoo xam ne yow doo ko doo ko ut lay dab tu vois peut-être dañu nekk ci benn waar boo xam ne dafa intéressé nit yi nit yaa ngi ciy wax positivement négativement maanaam da leen intéressé quoi loo xam ne intéressé wul nit yi duñ ci wax mais peut-être dafa intéressé nit yi gars yaa ngi gis ne ñu ngi bay suñu waar et puis loo tax ñuy wax ah mais bon Y'en a marre li mu mu ngi mu ngi fii di liggéey di bàyyi di bàyyi waaram di jéem a fexe ba Sénégal jëm kanam. mais sa gars yi mais sa gars yi ñoom beneen temps. beneen temps maa leen di parce que parce que yow nooy nooy bàyyi sa dëkk dem di jéem a di jéem a mobiliser wu ngir beneen dëkk maanaam ngir beneen réew boo xamante ne ñoom sax xamuñu man pour man loolu euh, loolu si la. mais gars yi defuñu loolu de. non man man dama dégg ñu ne gars yi loolu lañ. waaw xam nga Sénégal moom xam nga Sénégal moom. di xam nga Sénégal euh, euh, jaajëf waay nga def jaajëf xam nga Sénégal dégg naa daf yomb dégg naa. si moom laa wax de si moom. non non dégg naa milliardaire la dégg moo biiral oto bay xam nga dégg naa moo war fas bay ne di dem dégg naa moom. gis nga li mu lay expliqué. xam nga Y'en waa Congo dañ fi ñëw biñ fi ñëwee est dañ la ne la ñëw Sénégal. ñoom ñu nañu borom suñu sago ñu invité leen ngeen ñëw wax ci ndaw ñi ci li ngeen di def ci wàllum NPS ci li ngeen di wax ci wàllum citoyenneté ci li ngeen di def ci wàllum démocratie est-ce que dañ leen wax ne euh, non non bu leen ñu woo seen dëkk ñun bëgguñu ñëw seen dëkk ñu rek ma dem. Euh, mhm. parce que xam nga xam nga lu ci day waar parce que ñooñu ay këx lañu ñooñu ñooy topp dégg naa dégg naa mi nga xam ne moo ngi dugg ku ne. dégg naa dégg naa dégg naa tu vois ce que ce dire lii wax nañ ko ci presse bi wax nañ ko fu ne mais xam nga du ñu duñu lii duñu def dara dañuy yem ci dégg naa mais yaanaa ma ban fit xam nga ak ban waaw ban fit la am ban fit la am boo war a jëriñ rek jóg rek ne day dem fële

foo ñu foo ñu woo foo ñu woo dañuy dem comme nga li ma expliqué mais sénégalais ko comprendre noonu dañuy taxaw naan ay dégg naa gars dañu xëy rek dem ñoom dañu jël seen bopp teg ko ay Che Guevara mais ñun Sendem. Ne, boynu biri. Ne sen Simon yaramam dafa tàng na fee. waaw ba léegi Simon kon. mu ngi dawal di wuyu téléphone xolal xaw na indi accident sax ñu oto bi xaw na indi accident sax bi moo bon ci dawal di que nañu leen ñu jàppale dañu dem foofu ñu leen di dóor ñu leen def lu ne mais dañ leen. man dégg naa sax ñu naan dañ leen doon takk. non ci garab yi di leen. di leen leen dugal di xool lan moo leen fa indi bu ñu comprendre lan moo ñu fa indi ñoom ñu doog a ne daf nañu ay mais di di toppatoo gaay bu baax indi leen reer añ ñun xawoon parce que newoon nañu ne am na ku ci damm am na ku ñu dóor ñun ñu tiit mais dañ leen doon toppatoo mais naaj ma. dinaa bàyyi de ah parce que man non yéen ba yéen la xool yéen nit la xool. mais kenn xoosu ji au contraire tu vois au contraire maintenant nag ñoom dem nañu bëgg gis ne def nañu ay maintenant fa la ñu rafetal mais ay a non grata gars yi doo leen fi dugg fii ay affaire yooyu parce que seen gouvernement parce que mënu mu demee ñun dañu ne ñun ay terroriste lañu yi ñëw foofu pour jàngalu ndaw foofu noonu xeex mais xam nga loolu ci lan lañ ko basé. xam nga malal groupe bu mu bokk ba tax bu leen delloo tudd te ay yére trait la ñuy sol maintenant malal dafa yóbbuwaale eh, woon benn trait boo xam ne dañ ko bind ba tey moom blende gars yi foog ne gars yi dañu ñëw gerte. xam nga ngay def comme yàgg nit ne ne jeex taxawal mais ana loolu yow yaa ko def sa bopp ne nit ku nekk sax mboq bi quoi boo xam nga xam nga amoo ko ko. ñu nga ay affaire am affaire yooyu. waa dëkk ba tiit nañu ba defe ne sax moom daa ko fexe. non la policier ñoo xaw a parce que effectivement peut réalité bokkul xam nga foofu dëkk la boo xam ne dañu xam guerre donc donc bu ñu gisee ay fee gis yenn yi automatiquement seen xel day dem ci ay mais bon noonu la fa demee ne bu ñu xamee ne lii groupe de rap dugg internet bi gis ay clipu malal gis ay affaire am ñuy ñuy ñu ne ah, affaire lii la man mu ne lii la sama groupe moo tudd boo xam ne day ñëw guerre ci quoi. Euh, ba léegi euh, Simon. Euh, salaamaaleykum. na ngeen def. changé maanaam wala nga joxe benn message boo xamante ne nii euh, sénégalais ba projet bi euh, man daal ñu koy waxatee daal ci ay olof xam nga damaa déggul olof bu baax te dama cay bañ a xóot ku dégg si moom mooy xam nga mooy li ñuy expliqué pour gàttal rek kaso moom kenn ñaanalu ko kenn mais damay faral di wax ne nit yi dañuy fàttee ne peut-être Karim Karim Wade dafa siiw mais am na ñoo xam ne ñu ngi ci kaso bi dix ans defuñu dara dix ans quinze ans tëdd ñu xëy rek na leen génn leen defuñu dara am na ñoo xam ne benn erreur la ñu def cent franc la ñu sàcc wala soixante quinze franc ñu tëj leen ba tey fàtte leen foofu ñooñu kan moo leen di waxal kan mooy wax ci ñoom kan mooy kan moo leen di plaidel donc il faut ñu ci xam ne tamit yenn saa yoon dëgg la foog mu def liggéeyam mais yoon tamit wax na di xool saa yooyu mais bañ a di statuer rek ci ñi nga xam ne dañoo siw wala dañoo dañoo dañoo am daraja voilà oto yi oto yi ok boo amee benn tur bi sa sa sa dañ lay créer wala wala wala la sans boo amee yenn tur yi dañuy bàyyi xel ci yow pourquoi pourquoi boo amul tur yi yenn tur yi dañ lay fàtte looloo bon boo amee yenn tur yi dañuy dañuy bàyyi xel ci yow dañuy wax sa cas dañuy wax sa procès mais boo amul yen tur yi dañ lay fàtte booy kolobaan yaa ngi vingt ans lañ leen daan te ñoo xam ne dañ leen téye di leen topp ba dañ leen fàtte dañ waxatuñ ci ñoom mais Karim bu ñuy wax ci moom sax gaa yéenewuñu kenn nga dem euh, nga dem kaso ba quoi mais peut ne justice am na liggéey bu mu def am na lu mu gis nañu bàyyi justice ba fekkee ne ñoom dañuy defaat appel wala xaw ma ndax am nañ droit def appel ndax ay day wala affaire yooyu après ñu xool mais tamit man li ma bëgg a wax politique yi mooy il faut ñuy bàyyi yenn saa yi jël en otage Sénégal 24 heures sur 24 mais 360 jours dans l'année nit yi dañuy politique mais kañ la ñuy liggéey quoi dëkk ci politique di politique di politique chaque instant politique lépp lu ñëw politique lu ñu kii politique mais kañ la ñuy liggéey quoi. yow naa man man man man parce que man dama doon dégg sax ñu naan waaye naa maanaam am na ñoo xamante ni dañu leen ay millions. xam nga seen def xam nga lu tax ñuy wax loolu. parce que ñoom ñoo jukkoo woon noonu rek mooy waxee noonu. parce que ñoom peut-être bu ñu leen joxoon dinañ def noonu. mais Y'en fu ñu dëkkoon fa la dëkk ba tey. koñ bu fu mu nekk ba tey foofu la nekk avant Y'en a marre la même fréquentation oto bii nii ma am avant Y'en la ba tey moom laa yor di daw. donc ñoom mënuñu comprendre ay ndaw mënuñu ko comprendre. mais dafa mel ni ma toog rek ne mais yéen seen télé bi nii waaw est ce que yéen gars yi financé wuñu leen pour ngeen créé télé pour dal pour dal ci nguur gi wala invité ay ñoom Simon ñuy wax li leen neex rek ci télé bi xam nga ne fan lañ koy teg ñu ngi ñëwaat ci dégg naa ko mais kan moo mën a taxaw mais ñun ñoo jox Y'en a marre kan amul ONG yi ñuy liggéey wax nañ ko ci télé bi ñëpp di ko dégg wax nañu montant biñ ñu jox ak est ce que montant boobu si suñu poche nekk non ci benn compte la nekk waa Ligue de francophone ñooy gérer compte boobu ñooñu ñoo koy loolu yëpp expliqué nañ ko di si ñëwaat mais sénégalais mënul dégg loolu moom li mu bëgg a dégg rek ak li mu la tuumal moom lay dégg mais fii ba gànnaaw suba du ñu mës a gis nit taxaw ne ñoo jox jaay du ñu mës a gis nit taxaw ne ñoo dañoo koom te li ñuy def dañ koy def waxtu dëgg bu ñu ñëwee nguur gi bu ñu ko waree wax dëgg dañ koy wax ku nguur gi bu ñu ko waree dëgg dañ koy wax lu ñu war a wax tamit sénégalais yi naan leen il di koy wax peut-être looloo tax ñu bëri noonu mais parce que yàlla xam na li nekk yàlla xam na ndax lii nii ñuy def ay kaf la ay ree la wala ndax dëggu nañ ko. non ban sëriñ euh, ba léegi dara fu mu nekk nii téléspectateur yi toog di seetaan. Mhm. jamono jiñ toll xam naa ne seen xol frigo na ba ku ci nekk teg sa koo màtt. moo xam Mad ah dafa naa sama dëkk la fekkee baax de Casamance. Mad waaw aayuma ci nag. mais yow téléspectateur yi fu nekk ñu toog fu nekk jàpp sa Casamance yow boo fekkee ñu jàpp Mad xanaa di nga jël xorom wala kaani wala. waaw waaw waaw bon waaw naa leen ba léegi rek yéen ngi seen biir émission doxantu euh, tey ñu ngi fii ci Médina ànd ak garmi maanaam mu beneen euh, daanaan Simon kenn doon ko présenté Sénégalais yi euh, ba léegi rek ci biir doxantu Simon yaa ngay waajalal lu xatuma loolu sax man dama ne woon man euh, pourquoi maanaam da ngay gis ñu tëj benn at ko ci benn at te maa ngi grand théâtre si biir at moom noonu jëmaat grand théâtre wala ci am nañ ci ñoo xamante ne bu ñu demee grand théâtre bu ñu woyoon euh, at ba lay jàll moom la ñuy woyaat grand théâtre nga ba pare bëgg chaque année maanaam chaque année benn nga bëgg dem grand théâtre te la ngay yóbbu grand théâtre bu ñu dee maanaam la ngay tegal nii grand théâtre mais bi nga ñëwee grand théâtre moom englais tegalaat. comprendre loolu laa mën di est-ce que du ko def ay deux ans chaque deux ans ñu ne ku grand théâtre bu ko defee gis ku génn si loolu bu ñu sañoon mu jeex parce que tey Simon bëgg na liggéey mais Simon nanu ko dañ ko war a bàyyi mu liggéey benn album boo xamante ne nii tey euh, bu oowee téléspectateurs yi ba ñu ñëw toog mais attends mu servir lu bees.

tamit dañuy ñëw pour bànneex boo amee capacité mobiliser mënoo ne nit non doo doo doo doo dañ koy bàyyi mu def léegi am na benn moment ñoo war a tamit di xam ne waruñu dem ci n'importe quoi tu vois parce que yenn saa ay mumbaay mumbaay fekk fekk tëb dal tëb dal fexe voilà te te te te maanaam benn benn benn temps bi nga doon dégg rek ngay dégg est ce que si ñoom bon loo ci mën xam nga ni la ñu bëgg même musique yi même mélodie yi même wax yi même yëf yi ñàkk fayda yi tu vois baal ma ci terme bi bëgguñu loo xam ne day jëmale kanam ñun bu ñuy tëgg instant yi ñun

ñun daaw message boobu la ñu lancé année bii boo ñëwee di nga gis beneen message bu ñuy lancé boo xam ne dañuy ne nit na une partie ko jàppe wala une partie des ko kiiwal parce que yenn saa yi c'est pas bien ngay def pour yow yow def wala jigéen sa bopp defal ñeneen boo ci tolloo mën ñun année bii suñu thématique jeunesse la leadership entrepreneuriat participation dinañu indi ay ndaw yu ñëw ñu won leen ay exemple lañ am na am na si kenn koo xam ne Chérif Bass moom benn kii la yore benn société la yor da doon commencé di jaay saako saako mbay mi ngi leen di employé boobu dañ ko bëgg a wan beneen Sénégal état jàppalewu ko mairie jàppalewu ko keneen jàppalewu ko moo ko ñefal boppam teg société

jamono ji impunité bi dafa doy waar. voilà parce que parce que man damay damay xalaat ne euh, Simon nit ñi nit ñi jamono ji ñu toll bëgg nañ toog si télé bi. Mhm. wala ci rajo bi. maanaam di déglu yoo xamante na ay léeb la ay lippoon maanaam fu nekk dañu toll jamono joo xamante ne euh, man si man quoi maanaam képp koo xamante ne rek yaa ngi ay léeboon ay lippoon ay xoox dafa bëri yenn saa day baax ñu ñu wane ay jeune xoolal kii nii ci tantinam teg am na ñu bëri ñoo xam ne lii du lañ ci fekk

Je vous di un ay exemple un moment quoi mais à chaque fois on ci télé bi Mumbai Fort, léeb Ré, kaf patati patata non parce que suñu une école, bu ñu une école école, toog taal télé école, la mais pour ñoom une école.

ko nga dem kaw di nga dem États-Unis di nga dem fépp do gis kenn ku meuna def loolu donc ben moment tamit yoy foog ñu woné mais à chaque fois di ñu woné ay Mumbai ay fo ay caaxaan ay ree amul solo amul solo. mais mais mais ça ça aussi tamit euh, da koy laaj. waaw da koy laaj yenn saa c'est vrai que il faut nous yi di changer air mais trop tamit di woné loolu ci lu bëri tamit da fa baaxul. parce que ça ça yow tay Simon di nga di nga jógee studio. Mhm. ba ma jógee feneen wala réunion wala feneen ak feneen ak feneen. Mhm. mais Simon nga ñëw sa bopp nekkul daal. Mhm. comprendre uh, por um di nga mën sax yow ne man fu ma mën a toog nii mm. pour soulager tuuti ne mm-hmm. Simon di nga ko ut mm-hmm. si la bëgg nga teg sa benn clip wala say son baa nga dugg studio sax ci li nga xamante ne tey euh, am nga ci euh, déception wala leneen ak leneen mm-hmm. nga rab ko sax moo lay gënal maanaam pour dindi li nga xamante tey yaa ngi dund sa biir xol mu ci mais xam nga du la dal tout le ne suñu doom yi ak suñu rakk yi yenn saa tamit il faut ñuy wone si télé ñuy yeete si il faut ñu si xam gis ay booy rappeur yu bëri yu ma leen laaj est-ce que yéen a ngi jàng tu vois ma ne leen est-ce que yéen ngi jàng ba tey ne non ñun dañu bëgg bàyyi jàng bi pour def carrière ma ne da ngeen dox mais simal ma simal ma limal ma dix rappeurs boo ma limalee sept yi wala six yi dañoo jàng ba dem université am seen i ay diplôme seen i ay lijaas yor seen ay structure yoo seen i ay société da ngeen foog ne bi téye big bi kese la di bind di rap, di ratataté di dem non il faut que tu téye benn moment benn connaissance générale dans ta tête moo xam ci daara bi la moo xam ci école bi la moo xam ci apprentissage de la vie la. waaw loolu da ci am solo bu baax mais loolu tax ñu ne benn moment tamit ndaw ñi mënul leen à chaque fois di leen wan ci télé ay Mumbai il faut benn moment ñuy wan ne luy yeete ay temps ñun maa ngi fàttaliku un chiffre un chiffre une lettre donc c'est ça. waaw les chiffres voilà des chiffres des chiffres et des lettres dañ ko doon seet

loolooy modèle yi. mais mais aussi tamit aussi tamit bëgg am na si moom. mais bëgg am na dëgg la waxuma ne ñun ñii ñëpp lu ñuy def baaxul. mais peut-être ñun est-ce que est-ce que ñëpp mën nañu mel ni ñooñu. est-ce que ñëpp mën nañu mel ni Balla xam nga Balla lu mu daj. xam nga Eumeu Sène lu mu daj wala Modou Lô lu mu daj. est-ce que xam nga ay footballeur ñoom El Hadj Diouf wala leneen lu ñu daj. mais est-ce que c'est pas vrai tamit wan leen ne ñooñu du yoon bu yomb mais boo toppoon sa jàng bi di instant yi nii mën nga nekk benn cadre ci benn bureau toog wala wala nga raw keneen wala nga tijji sa propre société di employé ay

maanaam dañ seetlu ne euh, maanaam dañ ci caractère nga way bu caractère way bu toog caractère est-ce que xam nga way bu caractère maanaam euh, rap rap boo xamante ne nii gars yi maanaam duñ ko fecce quoi duñ ko béggee quoi merci non <laughs> damay béggee de ana mais ana des spectateurs parce que si moom da xam nga yaa ngi wax sànq li ñuy rap neexu leen waaw walaay ah, waaw xaw naa ci clash mais classe bi da àndaale ndax benn bëgg yàq benn reetaan bu sew. waaw avant de tamay. waaw waaw waaw voilà léegi ñu ñu gis ne aussi tamit ah euh, Simon dafay bëri lu ëpp rabam bu bëri maanaam classe. temps mhm. temps temps temps kon tey rab barke Seydina Mohamed yàlla rek a tax may wax li mhm. tey du dara. Mhm. mais dama ne la man damay déglu Simon. dara dara tabu la. Ah. parce que Simon ah, ah, maanaam di nga toog benn temps boo xamante ne nii sax nii nii nii. Euh, di nga ko déglu maanaam da ngay dégg rab. 慢慢就。 xam ne dañuy dégloo rap. Euh, ci seen xol. am ñoo xam ne dañ koy dégloo ci seen xel. am na ñoo xam ne dañ koy dégloo ci seen bopp ñoo xam ne dañu seen nopp rek. Mhm. wala ñuy gis rappeur bi rap mhm. Mhm. ne yow rap ngay dégg maanaam amul jaay amul neexal kii maanaam. dañ yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp koy da nga koy. maanaam ñun moom lu ñuy dund la ñuy rap ci li ngay dund ngay rap. ñun lu ñuy dund la ñuy rap franchement ni ñu ko sentiré noonu lañ koy waxee boo ñu fekkee ñu kontaan rab bu kontaan ngay fekk ñuy def boo ñu fekkee ñu mer rab bu mer nga fi fekk boo ñu fekkee ñu nekk seconde ci benn livre di ko lire wala doon seetaan benn documentaire moo am la ñu dugal ci suñu bopp rab bu mel noonu suñu rab bi di jóg di dirigé di naan tey de lii laa am wala lii laa am day fekk soit ñu dund ko ñu nekk ci wala ñu nekk ci état d'humeur boobu noonu wala ñu am lu ñu dund wala ñu am lu ñu nettali nekk si ñu dund ko

comprendre nga xam nga tey mi ngi ay da ngeen war a wax ci ambulance yi. tu vois waaw. mais nga lu gën a wax ci ambulance yi ambulance yi waxal seen bopp. ah ma ne waaw ma ne ambulance yi waxal seen bopp ñun moom indi nañu caméra yi maintenant yaa ngi ni nga def waaw ça va ambulance war ngeen koy wax quoi. Hmm. parce man li gis mooy. Euh, hmm. boo xoolee waa mairie yi dañuy jaxase public bi ak euh, ak ambulant yi. Mhm. comprendre nga mhm. parce que dañuy naan bu njëkkatee ambulant yi dañu fi def ay ay passage ay affaire ay fleur affaire yooyu te boo xoolee waa koñ gisaguñu loolu comprendre kon ñoom bon dañoo war a wax si ñun daal. Mhm. parce que ñun dañ doon liggéey di daal suñu doon dëgg la ñu nekk fu ñu nekk euh, du yoon sax booy xool mais nag war nañ cee mën a jàppale daal après bu ñu jëlee fii bu ñu fa xamante ne mooy bof mooy baax. nga am na lu am solo lu mu wax nee fu ñu nekk du yoon boo ñu fi jëlee am foo ñu yóbbu xam nga genre yi discours bu carré la ko mais xam nga nga dajewoon ndax benn ambulant mu ne la waaye du yoon jëlee nañ ñu fi ma ne ko mais bopp buntu kër jàmbur nga ñëw teg sa bagage ñun bu ñu xëyoon ñëw sa buntu kër teg suñu bagage ak dina la neex bu ñu xëyoon sa buntu kër ñëw teg mais moom li mu wax sa dafa sensé dafa ne ambulant boo ko jëlee fu mu nekk yóbbu ko feneen donc message boobu boo koy lancé ay message la léegi la ñu fekk ñuy wax ne ñun suñuy dañuy wax par ak réalité lii yomb na soutenir tu vois parce que mënoon na dem sàcc mënoon na dem def lu bon mënoon na dem def leneen maa ngi lay jox exemple naan la am na ñoo xam ne seen mag ñoo nekk kaaw di yónnee xaalis maire bi di yónnee xaalis ñu croiser les bras naan dëkk bi dafa

ngeen wax aussi tamit euh, yaakaar naa ne euh, bu ma wax euh, bu sa waxee. waaw kay toog dafa mel ni. kay toog day mel ni Simon sa waay boo xee nga wax. gars yi sa sa kàddu la ñuy njëkk dégg sax sa waay parce que tey jii dañu naan Simon rappeur la parce que déggul Simon rap na si am ambulant yi temps te mhm. pourtant marchand ambulant yi chaque ñuy dëkkee kaas. Mhm. comprendre est-ce que est juuma benazaru, ñu def benn genre euh, benn genre label boo mana, ne ni aussi mën nañ ci dimbali maanaam jeunes yi nga xamante ne amuñu liggéey est-ce que yéen pare ngeen yéen rappeurs yi voilà xam nga même taxawal benn affaire boo xamante ne ni bon dinañ ci utal jeunes yi liggéey ak yeneen ak leneen ak leneen. amoo ñun moom suñu cadre la ñuy wax buñ taxawee ne tey mën nañ teg loo xam peut-être ku nekk comme ni ma la ko man affaire bu ma ci di maa ngi siy liggéey loo ñaari nit loo xam ne ci rab mais man la keneen am tamit business di si liggéey loo ñaar wala ñett kooku ñoom la mais bu ñu newoon tey dañuy wax ñun loolu loolu rôlu état la il faut ñuy waxante dëgg état moo war a maanaam jàppale gars yi état moo war a wut ay lieu yoo xam ne dañ leen fay teg tu vois fii nii xoolal lieu la ay cantine la gars yi dañuy jaay nice. voilà pour pour pour ñi mënul wax. Euh, mhm. pour ngeen waxal leen yéen. mais loolu la loo tax ñu jox ko kàddu moom boo boppam. xam nga gën a yomb. Ah ah. ñoo toog tey ne mu ngi nii caméra baa ngi Sénégal lañ lay seetaan tu vois waxal. mais moom dafa neex a dégg mooy moom kaasul ci jëlee bi ñu leen jëlee ci mu nekk danañ ne boo jëlee nit ki ci fu mu nekk amal foo koy dugal te fu ñu koy dugal tamit na nekk foo xam ne fu ñu mën jaay la maanaam fu accessible la fu la nit ñi di mën a gis di teg bët tu vois kuy napp da nga koy yóbbu maanaam xaman jéena jéena jéena waaw ndax doo fekk mool di ko yóbbu àll ba naan ko demal jàppi jën waaw lii neex na dégg tu vois Uh-huh. Hmm. on est tout à fait d'accord. tu vois. té message bobu nonu dinañ ko jàllale bu dul fii bu ñu toogee ci benen plateau dinañ ko jàllale parce que loolooy suñu rôle tamit. mais tay mais tay euh, mais tay dogu ma la Simon. tay ki lu mu wax né bu ñu ñu jëlee fii dañ ñu wara a fenen comprendre mhm. yow tay loolu ban jangat nga ci am ci lu mu wax ni manam yow Simon bo demoon ba leen di waxal. Mhm. no cey wax ak noo cey wax. clair ni 1 plus 1 2. nit ki.

ci yoon le seul problème mooy peut-être yenn saa yi am na ñoo xam ne dañ leen yóbbu ci ay fukus tej leen fa alors que dañ leen wara a fo foo dafa visible mën nañ fa jaay peut-être lolay différence yi tu vois nga ñëwoon jël ben lion yi def ko centre commercial def ko sur trois étages visiblement parce que mu ci diggante centenaire bi et cetera moo gën nga koy yóbbu ci ben terrain bo xam ne lolu donc ñun côté boobu la ñuy waxee côté boobu dañ koy soutenir dañ ci avancer té dama né mom ni tok bu ko jaree après dañ koy jox sama téléphone wala ñom fu ñu dajalo wala bu ñu amé porte parole ñu jóg ñu ànd ba ci autorité yooyu noonu ñu dem foofu. ok et puis ñu ñu ñu wan leen ñu wax leen dëgg bëgg a wax quoi. Mhm. Ah, parce que dañoo gis lu bari ne dañuy ñëw ñu ne marchand ambulant yi da ngeen nekk ci foo nekk foo xamante ne ne nit ñi boo leen lalee nit ñi duñ jaar fii xam nga léegi ñu yëkk di ñu foofu noonu yóbbu ñu foo xamante ne ne bul xam. Mhm. foofu boo fa demee doo jaay parce que ñun lu ñuy jaay jusque bu teg ci mbedd bi nit romb ko gis ko bëgg ko jënd mais ñun kiiwuñu daal xam nga après tamit du ñuy wax mooy lu ma gën a métti mooy mooy dañuy boole ñu nag waa peuple bi maanaam ñu nag waa koñ bi dañu yëkkati dañu yëkkati jaaykat yi après bu ñu leen yëkkatee après dañ leen defal ay passage piéton ay affaire yu rafet ngeen fiy kii ay fleur affaire yooyu te boo xoolee ñu fi ñu yëkkatee daaw ba léegi mën na un an bu ñu yëkkatee defuñu fi dara ñu fi ñun ñu dañ ci kontaan mais defuñu loolu comme li ñu def ni man daal politique laa ko gisee quoi politique laa ko gisee bu ñu ya ñëwee ay wa Grand Yoff ya yëkëti wa centenaire yëkëti ya wa tingé ñaata personne lañu yëkëti ci lool lool ci dëkk bo xamanteni amul liggéey fi ñëpp mënu ñu rap ñëpp mënu ñu nekk ay football kat ñëpp mënu ñu ay musicien comprendre nga ñi dañuy jaay ñii dañu comme comme ñun ci luñu nek dañu wara jappalé ci lool tamit quoi soit buñu buñu bu ci lool tamit dañu jox dañu jox lo xamanteni tamit mo tan mënu ñu lool quoi mais ay centre de course xam nga dañu fëlé bax bàq yàlla ko gaa yi sax da nga fay nek di lek li nga yor mën yor ben 100000 di xey di ci di ci ndekk lekk di ci añ xam nga war a ci dundal sa njaboot ba yàggee sa waay foo jëm yàggee foo jëm wala da ngay dugg ci bu fekkee dañoo bëgg ñu delluwaat ci li ñu nekkoon Dakar eh, fii Barça parce que boo yoree sa benn 300000 chaque jour di ci lekk bu yàggee da dem. day xool foo hmm. bu fekkee dañ laa fekk loo xamante ne yaa ngi ciy góorgóorlu dañ laa war a poussé wax la tuuti. xool li nga war a mën a def jàppale la comme yeneen dëkk yëpp mais xam nga mënoo ñëw fekk Sénégalais yi boo xoole fii boo commencé jàng boo gisul loo xam rek ci njaay mi rek moo fi nekk dem moo fi nekk loolu rek moo fi nekk. léegi nag loolu noonu bu ñu la ko xañee tamit day métti quoi. je crois que message jàll na ah. jàll na euh, defe naa ne téléspectateur yi. fexe leen ba bu leen ko dagg nag ana caméra bi xam nga fexe leen ba bu leen ko dagg nag. man dama wax sama soxla ah. Eh, nee naa Simon laa lay wax de Simon laa la wax ci biir émission doxantu mën sa ñàkk tey euh, ba léegi rek euh, Simon ñu gis ne benn instant ba léegi nii yaa ngay préparé te lu rëy nga jëma ci grand théâtre. donc euh, tey est-ce nga wax ci spectacle gis. heure ba ji ndax jamono bii tool bi defe naa dañoo nam si. Mhm. wax ci spectacle bi. ax tamit sax eh, dama fàtte mais Diallo Dieye buuru ngaram bi nga xam noo koy dogee yow dama fàtte ba léegi si moom eh, eh, si moom la ma wooyee <laughs> na ma singom bàcc Sëriñ Tuuba maay jégg léegi papa ma lii moom luñ ko tax ñu juum ay singom yooyu noonu non graoul ci la. Euh, ba légui rek ñi gis euh, euh, Samba bëgg wax ba album. sinon man nga wax nga album trois six hein, sept album mixtape il y a ñaari album ak ben triple album 7 waaw 7 produits la génné quoi 7 produits Il y waaw ñaata temps année prochaine la am 20 ans ci <laughs> année prochaine lay année prochaine lay fêter 20 ans grand théâtre xam nga année bi grand théâtre L'année prochaine 20 ans lañuy fêter ça va boum voilà waaw waaw bo mom bëgg nañ ko def indi ay nit ay rappeurs yu jugé states amérique ñi jugé france voilà je me retracer un peu sur yone bi xam nga wat dina am ay surtout mais bon pour l'instant instant ñu ngi ci année bi le 18 là yagatul xam nga samedi 18 avril bi di ñëw invité nañ ñëpp comme niko gaay gars ci affiche bi di nga gis ben tenue militaire pour xéxal comme sama grand yi ni tok tu vois di nga gis ben prisonnier pour xéxal nga xamné ne ñu exprimer wu di nga gis ben avocat pour plaider ñooñu ñëpp donc donc gars nañ ñëw gis ben spectacle quoi donc comme ni nga ko waxee rek moy ñëw gis spectacle vraiment pas ñëw rek pour Mumbai bi gars dina am ay bége time dina am ay show time mais tamit nañu wax suñu soxla nañu waxal tamit ñi nga xamné amuñu baat et puis euh, voilà dinañu bége waale quoi parce que aduna lolo fi nek quoi c'est vrai que ñaxtu baax na mais tamit bége tamit voilà ci la bokk mais pas lu bëri tu vois donc nañu indi hip hop real hip hop hardcore di ko comme ñu ko doon défé temps yi njëkk et franchement na gaay yi ñëw Eh, dina nice xam naa ticket yi nag lu des bëritul donc nañu gaaw dem jënd ticket yi télé bi partenaire la ñu leen di remercier wa LCS parce que ñëw nañu ngeen jël spot yi diko tek diko voilà di ñu émission donc té depuis daaw noonu ngeen défé donc franchement respect mais di wax gars yi nañu gaaw dem jël ticket yi xam nga. waaw 813 93 15 77 813 93 15. kon jamono ji ñu toll nii man suma bëggoon dem Grand Théâtre légui euh, pour réserver. Mhm. léegi su ma demee nii Grand Théâtre est-ce que mhm. naa boo demee Grand Théâtre nañ la wax fay amé billet mais bo woté numéro bi fi nga tok

ñoom obi ñoom xam nga gars yi yëpp le pharmacien Iba Wakaam tu vois gars yi yëpp ñoom tamit am nañu kii yi. ticket yi moom boo ko bëggee dangay woote rek 813 93 15. dañuy ñoom fu mu nekk nii yàkkamti nañu euh, maanaam dugg sama Grand Théâtre. Mhm. waaye sinon lu bees tàq ne yaa ko wax de. nañ gis yu bees tàq mais Mate woyul rabul si rab mooy def nii <laughs> ah ay téléspectateurs defe naa ne jamono ji ñu toll nii euh, sinon. Euh, temps bi xoj nañu. Mhm. te dañuy doxantu bugguñu timis dab ñu ci mbedd mi. Mhm. dëgg bu ñu doxantoo ba ngoon jot. nee naa la dañuy dem rek juddiwaat tuuti parce que du dëgg bàyyi téléspectateurs yi enjoy ñoom seen yëf ñu ngi dem ak suñu yëf du dëgg ba tax na rek téléspectateurs yi yéen a ngi woon ci seen biir émission doxantu ma fekk ci woon naanaan bu mag mu di Simon tubaarkalla bu pare anniversaire am le 18 ah fële ca Grand Théâtre ne le rate pas bu ko kenn tardé na ca na ca ñëpp dem ku farak doxantu rek doxantu jël Grand Théâtre ay ca guddi gaa ngi noonu yéen ak Simon non ça va surpris di nuyu sama cameraman Pape Samba. Mm-hmm. di nuyu baax sama monteur boobu Diallo Dieye buuru ngalam waaye di nuyu euh, Ibrahima moo nekk El Malick Simon. Mm-hmm. Ibrahima El Malick damaa bëgg.

fais nous quand on blaze ou le maroc man natt moom ay daaneel man natt moom ay daaneel xale Sénégal wax leen madd sourire ma bàyyi way wi yeey mak madd ba nu suka saa nga ca wet ga xorom saa nga ca wet ga kani gaa nga ca wet ga lu mu sax sax noo defa màcc